léegi yow soo amee ferraille nga dem ci usine bi. usine bi da koy jënd. waaw daf koy jënd. par lan kilo. par kilo kilo ñaata. xam nga boo boo xoolee coow li presque fa la ne kilo bi 200 lañ ko doon jaay. dañ ko wàññi léegi. Mm-hmm. biñ koy biñ ko euh, def 200. Mm-hmm. ñoo am séminaire bu am sali. séminaire bu amee sali ngeen di wax waxu prix am ñoo xam ne dañoo bokk ci comité des prix nga belli ñooñu ko man parce que yàlla daf maa suturaal euh, xam nga secteur boo fi yàggee dañ ciy am cër. dafay am nit ñi bët bi ñu lay xoolee am da nga wax ci baax hmm. bi ñu ñëwee nuyu séminaire Sall bi belli ñu ci parce que am na détails yoo xam ne en tant que médiateur dama cee defoon médiation dem direction de commerce ba waxtaan bëgguma dugg ci foofu daal ba ñaan leen ba loolu jeex mais ñu ne leen ma woo leen ne leen nañ leen dajalewaat njaboot ji ñu dajalewaat njaboot ji ñu woo ñu toog ba jàmm am ñu dindi suñu 10 francs muy 190 ñu demaata dem ba mu yàgg ba le 21 bi ñu dindiwaat suñu 15 francs léegi dindi nañ ci juróom. te bi ñu demee ba juróom te bi ñu demoo palais dañoo ne woon ci kanamu Macky Sall ne président de bi mun te ñàkk 200 la. tey ñu ngi toll ci 175. gis nga am na be kii Assome Diatta ñun feraayu ñu toog dañ koy bëgg di sant parce que plaisir la ci ñun. lu mu leen defal. fii daf ñu doon woo woo ñu ñu ne leen hey leen xool prix bi international ak national nag lan moo jaadu. ñu xool ko mu ne leen hey prix bii moo fi war a nekk am na tabaski boo xam ne dañ ko doon waaj ñu ne dañuy wàññi ferraille bi force. mais directeur bi fi nekkoon moo leen ne hey loolu du fi amee. mais mais seen fonderie yi doy na. mais mais kii bi fi ne xoolal dégluwuñu. que am na ferraille yoo xam ne da leen belli moom ko si yóbbu leen seen kër moom Fofana da leen di toogal ataaya mais ñun après loolu. ma ne ma ne seen ma ne seen seen kii.